waaw dañu ne euh, maanaam lii nga xam ne mooy crédit hôtelier dafa nekk bor bu oyof ndax bor boo xam ne 3 virgule 5 pour cent du ko weesu maanaam téeméer boo jël ñetti dërëm ak genn wàll doo ko weesu en tout cas yaakaar naa noonu la. ci taux ensuite bu ñu la ko lebalee tey fii ak ñaari at ngay tàmbali di fay te boo tàmbali fii ak ñaari at. may na la juróom-ñetti at waay waay loolu xam nga oyof na fii ak ñaari at xanaa am nga temps defar sa activité defar business boo xam ne am loo xam ne dugal nga sa poche parce que sinon nekkatoo entreprise ndax entreprise kat pour créer créer richesse la bu fekkee toog nga ñaari at di góorgóorlu di góorgóorlu mun a am benn dërëm ah man dama dama jàpp ni kon war nga xoolaat liggéey bi donc oyof maanaam tool yoo xam ne produit la yoo xam ne doo gis ci benn banque

loolu lu oyof la kon ñu ngi ñaax ñepp comme bor la du maye ku nekk góorgóorlu ci ba be ci sa waar fay ko ni war ndax sok fayé sa dom ëllëg bu nek ci wal tourisme ci lay mën a demander financement jox ko financement donc c'est un crédit revolving donc loolu nak man amna ci yaakaar bu baax ndax kat ñi ma waxtaanee tay ay nit ñu am jom lañ nit ñu am euh bañu ruslo sen sen njaboot ndax tay dañu dajalé gouverneur région yépp